bi dañ koy repousser da lay taaril et tout billaahi lazim lazim ci tere laa nekk ak mhm. chabra mhm. loolu te ñooñu matériel yu bari yu dugg fii te noonu lay demee loolu mu lu am la mais justifier ko mooy jafe tey su ma waxee médecin boobu mën na ma porter tout à fait lan moo ko justifier Euh, ku wax Covid 19 aussi euh, on parle de troisième vague. Mhm. mais gis nañ aussi feebar bi euh, ba mu ñëwee bes le président Macky Sall defoon na si ay efforts yu am solo. Mhm. ba ñu bëri di loon ko rafetlu. Mhm. ñu gis na sax ay opposants yoo xam ne mosuñu doon yaakaar ñu toog ak ak kii di président Macky Sall ñu gis ne aussi ñu uy si ko. mu déboursé lu toll si 1000 milliards de francs CFA si effort de lutte bi 69 milliards mu réservé ko rek li nga xam ne mooy denrée alimentaire yi mu dénkoon ko kii nga xam ne mooy euh, le ministre euh, Mansour fay mhm. mais bu selon euh, le général François nga xam ne moo yore suivi bi dafa jàpp ne carrément dafa am ay surfacturation par rapport ak denrée yooyu noonu 69 milliards yi lu ñu waxoon defee woon ko ci tey est-ce que président Macky Sall jotul mu autosaisir su dossier boobu njaab njaab parce que kii bi cest à Covid bi problème bi dëggantaan pour régler ko fan la war a commencer ci santé bi la war a commencer mhm. hôpital Dantec lan la ñu doon wax man bien avant Covid bi. Mhm. da nga dégg ñu wax ay problème mu affaire yooyu. Mhm. dañu problème mooy oxygène ak yooyu. Mhm. <laughs> loolu cest à dama la gis nga dëkk la boo xam ne président bi ci woon dóorkat la ci dóorkat yi la bokk. Ah yow yaa ngi xaar moom pour mu def lan mu lan nga lan la war def. dafa war lan autosaisir pour xool contrôle moom yow kii di ut di di doon ut fu mu prox ndool bu mu jaaral xaalis dem jël beau frère a business pour xool fan la ñuy rawalee xaalis bi bokkul ak koo xam dafa am volonté defar. Mhm. tey instant yi nii demal fu nekk ñu naan non Sénégal amul place hôpitaux yi foo dem hôpitaux yi amul place Covid bi kenn amatul ñu teg nit ñi nit ñi amatul amuñu gaz amuñu ni Sénégal. Mhm. benn hôpitaux musul am place fii man feebar naa ñu jëlee ma SAMU fii ñu jëlee ma euh, hôpital Mamadou Diop def ma si ambulance. Mhm. ma yegg principal 17 heures li ma wax ni maa ko dund am na li ma wax man dama ko dund woon. 23 heures laay soog am chambre dañu xaar. mënoon naa cay dee.

somme bi yëpp pour Covid bi. 1000 milliards 1000 milliards ñu def ci 69 milliards yoo xam ne moom amul benn matériel boo xamante ni mooy taxawu nit yi amul. mu oxygène ay affaire yu ñàkk fayda ay problème mu lal ay ñu ñëw dem di jox artistes yi di jox ñuy jouer théâtre di jox yu ñàkk yoo xamante ni en fait jotewul dara ak xam ne li nga xam ne moom la en fait moom la war a xeexee Covid bi. Mhm. sensibilisation yi ci war sax duñ ko def. dafa dafa ñu dara dara lu dul jël ko di ko di ko di ko yi nga xam ne ñooy ñooy liggéey ñooy liggéey à leur faveur di leen jox ay subvention ñu toog ci télé bi naan dañuy jéem a sensibiliser ñi ci covid bi raxasu leen sol leen masque raxasu leen sol leen masque raxasu leen sol leen masque kese te waroon jël médecin yi kàngam yi teg leen ci kanamu télé bi ñu expliquer nit ñi naka la covid bi di développé nan la mel dem ci euh, ci santé yi jàppale leen yu mag yi ba gën ko yaatal jël armée bi ñu ibbi def defar c'est-à-dire dañu amul volonté tey am na am na ay hôpitaux yoo xam ne armée bi armée bi sax ñoo koy defee ci benn lieu ñëw teg ay lal monter affaire teg ay machin lan la yi di wax si gaz ñaar lay jar kiiw gaz bi la le de gaz 6 millions lay jar xaw mm. <laughs> mi ngi jooy ne amul gaz amuñu kii gaz. Euh, Dantec ah. hôpitaux hôpitaux yi gën a mag Sénégal laa lay wax nii de. Mm-hmm. hôpitaux yi gën mag te principal dama xool seen seen personnel bi ñu ngi jooy seen salaire ba léegi nii. Mm-hmm. ñu ngi jooy seen i salaire ba léegi boobu fekk na président mi ngi jël xaalis bi dem jox euh, waa ji nu mu tudd sax ci doon jël saako ceeb bi di ko jox di ko def si oto bali gi le gars là Pape Diop mu tudd sax fàtte naa tur bi Diop si xaw ma Diop si euh, boobu mi ngi jël gorom aussi nit ñi di wax waxi santé waxi covid jaaxle yow ngay jël ay ceeb ceeb quoi ceeb Macky Sall dem ànd ak journaliste yi ñu koy filmer muy dox dem port di wane ay ceeb ceeb ñu lay waxi covid ay jox nañ leen ceeb nga gis ay nit ñu jël saabu saabu ak eau de javel ñetti saabu yu 350 ak eau de javel ak genn wàll libaru ceeb di ko jox ñu ko wane ci télé bi quoi ñu ci niveau boobu la Sénégal ci ñaata 1000 milliards xam nga soo xam lu lay expliqué bu baax a baax mm. donc loolu man mënu ma gëm ni Sénégal am na gouvernement mënu ma gëm ay nit yu am pas-pas ak bëgg réew ñoo nekk fii di defar Sénégal mm-hmm. xam nga lu am solo mooy bu ñu taral bu ñu sonal Sénégalais yi Macky Sall ba mu jëlee ba mu nekkee président boo xam dafa irresponsable président boo xam jëlul ay responsabilité pour faale Sénégal ci lépp nag en milieu waxuma ay santé ay Covid kese de ku ci jëlul say xasum looro ak say ngeer la rey boo ci vacciné woo boo xëy la dal yaa ci angle yëpp na donc na Sénégal yi jël seeni responsabilité jël suñu Sénégal yor ko suñu bopp jël fexe jël sa nga yor bopp nga toppatoo sa bopp nga xool médecin traditionnel yi médecine traditionnelle li ñuy nga respecté nga topp ko nga fexe yow prévenir si feebar bi ñu ngi dox mooy message bi nga xam laa bëgg wax ci wàllu Covid bi Mhm. Euh, ñu gis président Macky Sall euh, def na tournée euh, économique ñu bëri jàpp ne sax variant delta bi kii di président Macky Sall moo ko tasaare ñu gis ne aussi am na ñuy artu par rapport ak événement religieux yi Magali Touba moo nekk événement bu ci jiitu mu mel ni comme communauté mouridisme bi ñoom dañoo jàpp fas yéene def seen màggal est-ce que da nga jàpp ne carrément que ils sont dans leur droit aussi. religieux ba maanaam activité bu ñu a doon pour man kenn war ko arrêté rawatina màggalu Tuubaa rawatina gàmmu rawatina ñun en tout cas ñun moom dañuy màggali dañuy gàmmu yi. ah bon ah waaw waaw c'est-à-dire moom laa lay expliqué c'est-à-dire ñoom xam yow tey. mais est yaakaar nga ni mesure barrière euh, comme que sa genre nee na bu ñu dem vacciné wu. Mm-hmm. Mm-hmm. mesure barrière yi rek moo mën a sauver nit yi. mais Ndiaye balaa ñuy soriwaat mu indiwaale ci vaccin yi vaccin yi du la teree feebar. vaccin yi la ñu war a jël teg paxate ko teg ko nee du mais dina la dimbale pour. lan lañ dimbale bañ a am cas grave. ñi fi dee ñëpp dañoo vacciné wu. en plus euh, mag yi aussi euh, soxla nañ ko même des même des jeunes aussi carrément. <laughs> ñaab ñaab xam nga man lan moo mooy mooy ni ñu au fait ni ñu gëmee au fait tubaab yi quoi si li ñuy wax ba pare xeeb li nga xam ne ñun am nañ ko te Covid bi nii war na doy exemple pour nit yi xam ni ki lay faj bu la waxee ne la li ma lay vacciné nii garanti wu la pour feebar ba la dal parce que feebar bu la xës ba dal moom contrôle feebar li gën a wér mu fekkee ki lay faj mënu lu garanti na feebar bi lii boo ko defee feebar bi du la dal mhm. bu la xasee ba dal naa la mën a assuré ba du la rey wala du la loolu xamul si dara parce que ku mënul tere feebar bi dal la li ci des mënu ko contrôler mhm. màggal Touba gars yi mhm. bu Touba bu amoon luy rey lu taxaw ci buntu màggali jàpp loolu mu leen ñuy rey ba ñu jàpp ko rey ko soo <laughs> koy am dara te moment bi boo seetloo sax bi màggal gi jegesee Covid dafa wàcc. mais est-ce que yaakaaroo passe vaccin yi wala sax passe sanitaire yi nga xam ne dëkk bu mel ni France euh, ñu ngi koy exiger seen ay euh, population mhm. yaakaaroo si màggal bi aussi ñu exiger ko aussi euh, <laughs> sénégalais yi parce que am na sax ku yëkkati kàddoom di mhm. xam ne ni sénégal yi bu ñu buggee màggal yi dañoo war a sax vacciné wu yaakaaroo ni ñu dem ba yegg foofu kan moo yëkkati kàddu yooyu bu ñu yob sénégal yi bu ñu yob sénégal nañu bàyyi ñu màggal yi nañ ñu bàyyi ñu dem julli ji ci jàkka yi nañ ñu bàyyi ñu gàmmu ji mhm. dem Touba dem Kaolack dem dem dem Tivaouane dem Ndiassane dem nañu bàyyi ñu nekk suñuy activité nañu en fait moom président munul moom mu bëgg dem def tournée économique am dem def ko tasaare feebar bi parce que li tax mu tasaare feebar bi mooy moom Macky Sall ni muy ni muy defee tournée mooy day jógee point A jël waa point A ak ay njaganjaayam leen point B du day jógee point A dem point A lay yóbbu leen mhm. point B Mm-hmm. ñoom ñooy jigwaat foofu encore yóbbu leen point Z c'est-à-dire même lay jël léegi ku ko jox waa point A jox waa point B jox bu fekkoon ni sax su demee su fii après ñooñu foofu da leen fekk foofu mu bàyyi fa fekk fekk fa moom loolu doon def rek loolu doon def donc kon man mënuma concevoir moom mu ne tournée économique boobu moo ëpp doole ay màggal Touba ay gàmmu ay jaamu yàlla mm. te loolu affaire politique kese te ñëpp xam nañu lan la fi liggéey booy wane lan la lan la Macky def fii Sénégal bi ma nekk ci économique donc kon man li may wax mooy murid yi sax moom jarul mooy murid moom xam man murid a faara man a naw dafay am fulla mhm. fulla ji nekk ci murid yi moom man damay ñaan tarixa yëpp ñu nekk si bañ a may kenn kanam muy taxaw naan day am tuuti lu muy layam layam yi sax ci ay màggalat ay ay gàmmoog ay yooyu sunu sunu cérémonie religieuse bi D'accord. léegi ñu génn ci Covid bi on va mhm. parler un peu de politique wax par rapport ak révision euh, liste